yàlla def tey le 24 mars ñu organiser élection bi donc di woo sénégalais yëpp ñu génn euh, voter massivement parce que suñu réew dafa toll foo xam ni soxla nañu bu baax a baax a baax a baax taxaw ba jafe-jafe yi fi nekk ñu saafara ko ah man nag ma gëm ne suñu projet nit ak naataange bi nga xam ne waxtaan nañ ci ak sénégalais yi depuis pratiquement 4 cinq mois ñu ngi leen koy présenter ñu ngi leen koy wax mu nekk projet bu am njariñ lool lool lool pour waa Sénégal ma projet boobu incha allah waa Sénégal dinañu ko voteel euh, parce que lu ñu bëgg rek mooy suqali réew mi lu ñu bëgg mooy defar réew mi li ñu bëgg mooy taxaw ndaw ñi taxaw jigéen ñi taxaw baykat yi sàmmkat yi nappkat yi taxaw enseignants yi taxaw ouvrier yi taxaw artisans yi taxaw waa Sénégal yëpp taxaw surtout notre jeunesse ba nga xam ne ñu am opportunité pour mën a dugal seen loxo ci ni ñuy defar réew mi donc moo tax tey dafa important journée bu am solo la bu am importance la ci sunu avenir réew moo tax kenn waru ko caaxaane kenn waru ko sàggane mais surtout choix bi ñu nar def ñu xool choix bu gën pour réew mi ñoo xam ne am nañu profile mën nañu taxawal Sénégal ba andiwaat fi naataange parce que am nañ expérience parce que am nañ parcours parce que xam nañ li ñuy def jéemuñu ko bu ñu leen dénkee du ñu tàndu du ñu laaj parce que def nañ ko ba pare.